taxaw 100 pour cent Guédiawaye bi xale yi ñoo ko sosoon ku ci mel ni B52 ay remarque Alioune Seye 2 ay Ndiaga Sarr 50 Cent ñoom ñoo ko sosoon taxawal ko mais di ko fooyee bi ñu ñëwee gis ma maa leen booy 100 pour cent Guédiawaye dafa yaatu lu lu ñuy fooyee nañ ko dañ leen ko jël au sérieux ñu doxal ko Guédiawaye yëpp gis ci seen bopp booy ne ma grand kon léegi ñun loolu la ñuy def dañu bëgg a jël fexe nga jiitañu ci loolu ñu def ci ay jéego mais ñu ngi démarré affaire bi ci combat Alioune ak ñaq jëriñu Ama seen ak Bour Sine jour boobu lañ doon lancé mouvement wu cent pour cent Guédiawaye jour boobu lañ ko lancé boobu la juddu carrément pour ñu taxawal ko daal waaw. ñu ci bari ci làmb nee nañ lu rafet la. tey ay 100 pour cent euh, mais coow yu bari ñuy gis ci ñi nga xamante ne ñoo bokk benn kuréel gi ñu dëkk euh, ci 100 pour cent yi ba mu sosoo ca la commencé bari boo demee 100 pour cent Pikine bi loolu waral diggante coowal Ama Balde ay Boy Niang ay Ama Balde Eumeu Sène nga koy dégg ba nga ko déggee 100 pour cent parcelle ca nga dégg te yenn coow yi ay diggante Garga Euh, diggante euh, Garga Mbossé Modou Lo Garga Mbossé Franc wala yu mel noonu ci nga dégg bërki démb diggante Gouye Gui ak Balla Gaye 2 en tant que président boo xamante ne da nga jiite cent pour cent waaye loolu ban gis-gis nga ci am. xam nga loolu rafet na mais man dama jàpp ne rek amul coow parce que soo gisee may jàpp ne amul coow ndax kër goo gis des fois mu yëngu. waaye potum biir néeg lay doon xëy na tey médias yi bari na ku jóg rek woo benn chute ne na may wax wax loo xamante ne ni maîtriser wuloo ko wala tool dayo boobu te xale yi dañu war a jàngiwaat communication wala ñuy wut ay conseil en communication parce que tëba tëb rek wax loo xamante ne ni te wax balu fetal la euh, sama rak sama xarit 50 Cent à chaque fois moom boo ko waxee day ñaan yàlla naan yàlla nañu yàlla musal ci accident wu làmmiñ parce que accident wu làmmiñ baaxul nit nag lépp looy wax war nga koo xo seg segaat ko surtout lu jëm ci loo xamante ne ni da nga koy wasaare ñëpp jot ci moo tax euh, te lenn li jaru ko loo xam ne mu nees na ko waxtaanee ci biir nañ ko waxtaanee ci biir waaw loolu daal laa xalaat ne te làmb moo demee noonu gars yi fi mu toll nii. lu taq ci mbër rek su defee lu tuuti ñun ñu coow ko mais fekk demul fen mais xale yi ngay dégg fan yi euh, buusita ak ak safara ak guy gi coow li ba ba demante ci yoon am ci euh, en tant que ay kilifa yoo xamante ni dëkk ngeen géejawaay ban taxawaay ngeen am ci loolu ak yan jéego ngeen ci def. waaw loolu avant tout dañ koy ñaawlu parce que warul demee noonu war nañu waxtaan def ba trouver consensus moo gën ñuy ñuy demlante parce que loolu moom moom la ñu baaxoo te loolu lañ xamee waa géejawaay xamee wuñ leen di jote seen biir wala muy amee neneen nu mu demee peut-être nag erreur duy ñàkk parce que booy guy gi seen mag la ñoom sonn nañ def nañ daj nañ lu ne ngir guy gi pour mu atteindre objectif am daj nañ ci lu ne erreur nag du ñàkk xam nga tey comme li may wax tout le temps supporters yi xaw ma ay fans club la ñoo ñu ñooy yàq déjà lu bari ci diggante mbër ak mbër mais mbër ak mbër amuñu problème mais ñee ñoo jógee koo fee naan la noo diw yéegul ak def na ni fekk na demeewul noonu fii naka jekk mag day jiitu rakk topp noonu la ñu xamee noonu la ñuy yaree ñun ñëpp ci ci école de lutte yeeg ak écrit yi nekk fii ci géejawaay te ñëpp benn lañ seen biir lañ yem ñoom géejawaay mais ñu génnoon fii daje keneen koo ci laal keneen ki rey boppam moo tax euh, loolu ñoom dañoo teel a dem wax ko nit ñi jot ci parce que wax nañ ko ci média yi rek mais soriwul parce que ñoom ñëpp benn lañ waaw. mais mer am na ci parce que boo xoolee lu mel ni fi mu toll nii euh, xale yooyu ñii dañoo dem tafu ci Balla Gaye euh, xalab guy gi ñii dem nekk ci guy gi xalab ñi nga xamante ne ñooy waa Balla Gaye mu doon loo xamante ni lépp ci biir géejawaay la sosoo mais est-ce que yow ba tey yëkkati nga benn jéego dox ko ci wala nga woo xale yi recadré leen waat wala nga woo guy gi wala ko mel ni Balla Gaye ba tey est-ce que jéego yooyu def ngeen ko ci. waaw fi mu toll nii. daanaka mun naa ne ça deux semaines ci loolu la ñu nekk di dox parce que ñu ngi nekk ñu ngi réunir surtout côté école de lutte Mor bi nga xamante ne ni man may directeur technique bi dañoo nekkoon ci ay réunion di defaraat léegi loolu am nañ ci ay jéego yoo xamante ne ni ñu ngi ko taxawal di ko def ba bi ngeen di ñëw rek le président Pathé Sylla président école de lutte Mor Fadam moom ngeen fekk ma doon jokkool téléphone noonu ñuy xool yan lan ak lan lañ mën a def ba nga xamante ne ni waxumala la école de lutte Mor Fadam waxuma la Bou Siteu guy gi safara guy gi keneen ak keneen noonu mais ñëpp nekk benn géejawaay ci loolu lañ nekkoon di waxtaan loolu ngeen fekk may wax ak moom moo tax euh, man daal jàpp naa ne lépp dina nekk benn incha allah suñu paree ci li ñuy def. est-ce que yéexoo leen jog parce que ngeen bàyyi coow li muy jóg euh, ñi ñi war a wax ci presse bi ñu ngi wax ñi warta wax ñu ngi wax euh, te saa su rek li ñuy wax coow li mu ngi gën a xamb mu ngi gën a jóg est-ce que jóg bi du fekk bay woy mbuus. non xam nga góor du naaje tool mbagg yi ñooy naaje loolu lépp mun naa bañ a sori incha allah te du yéex ndax ñëpp xamante nañ. Euh, jàpp naa ne rek suñu toogee ñoom ñëpp autour du table ku nekk wax ni muy li nga xamante ni moo waral nga am loo mer buñ ko waxtaanee dañuy trouver une consensus bu ordinaire boo xamante ne ni Guédiawaye day jëm ca kanam incha allah. en tant que ambulance ban relation nga am ak Gouye Gui. Euh, relation bi ma am ak moom wax dëgg relation bu pertinente la en tant que frère. tey jël sa téléphone am woo di ma laaj ay conseil man ma nekk directeur technique am encore ci école de lutte bu mu nekk lépp lu muy def dina may laaj ne ma man dama bëgg a def nangam ma wax ko ci sama xalaat te it jox cër la ku ma respecté la waaw. diggante ak Balla même chose te mun naa ne man géejawaay amoo fi sance interdit ndax loolu la yàlla def cër biñ ma cëralee. benn instant dama toog di laaj man lan laa defal waa Géejawaay bañ may cëralee cër biñ ma cëralee te pourtant defaluma leen dara au contraire damay jàpp ne ñoom ñoo ma defal mais ñoom ñëpp amul kenn koy wax ambulance te man joxuma cër mosuma cee werante ak nit mosuma cee xiiroo ak nit wala ñuy ŋaayoo wala ñu àgg fenn fi au contraire ñenn ñi sax suñ ma gisee dañ may rus ba duñ siggi xool ma. loolu nag yàlla suñu borom moo ko def. moo tax lépp bu loo xamante ne ni cër la rek jox nañ ma ko ma delloo leen ko parce que loolu la noonu la fa demee te ñoom itam wax dëgg neex yàlla lépp loo xam ne ñu ngi ci rek man sama loxo ngi ci biir. xale yi lan nga leen wax. xale yi comme li may wax toujours rek xale yi nañ jox cër mag ñi mag ñi yërëm xale yi. Hmm. affaire bi dox.